Ndakaaru ku ñuy wax Abdoulaye Sow moo ko jiite Abdoulaye Sow moomee nag bi mu déggee xibaar bi ñu koy laam-laamee jokkoo na ak waa réew mi quotidien bi ñu ko laajee ci mbir mi la xam xamle mooy def nañu sab audit mbir ma jébbal nañu ko yoon journal bi nee na en tout cas détournement ak falsification signature yi nga xam ne gis nañu ko ci biir chambre de commerce ca audit ba nga xamante ni def nañu ko doy na waar jéggi na dayo journal bi nee na tooxi doon a dëggantaan la bëri na ay chef département yoo xam ne joxar bi nañ leen baaraamu tuuma ca mbir a kaay gi neen en tout cas daal li sàcc nañ fa lu ëpp benn benn milliard yéen a gii di las xëy di ñu xibaar naan ñu jàngalekat yi mer nañ ba maara détal yi jàngalekat yi mer nañu kuréel gii nga xam ne moo g ñoom nag li ñuy sàkku mooy Mariama Sarr mi nga xamante ni moom lañ dénk wàllum fonction publique mu daal di tekki ndombal tànkam ndax li nga xam ne ay accord la woon ñu daal di koy signé ba mu leer nañ ñi signé ko ba mu leer nañ ñi daal di si jubbo amul leen loxo ci lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko kaay gii de la turbine nee na en tout cas li am ba de sàll mooy kaso yi ci réewum Sénégal fees na dell dell dell ak i nit bëri na ñoo xam ne ñoo ngi ci kaso yi nag di xaar seenub atte te kenn atte wu leen ñu yàgg lool ci kaso yi yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum politique ak plateforme bi nga xam ne Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Malick Gakou ak ñeneen ñoo xam ne bëgg nañu ko taxawal ngir jàmmarloo ak Macky Sall journal bi ñëw na ca la nga xamante ni moo ca baax la nga xam ne mën na koo yàq yéen a kaay gi di enquête nee na jamono li koy andiwaat leen ci langue politique gi ki nga xam ne nag mooy Alioune Tine nee na gise bi nga xam ne Abdoulaye Wade gise woon na ko ak Macky Sall ca Masalikul Jinaan ba ñu fa jugee la Macky Sall waroon a bàyyi Karim Wade mu ñëw ci réew mi yéen a kaay ñu xëy fekk fa professeur Iba Barry Camara xelam màcc jëm ci wàllum yoon la mu xam le nee na Adji Sarr ak génn bi nga xam ne def na ko loole nag teguwul ci yoon te ki nga xam ne mooy magum àttekat yi di doyen des juges nee ma Samba Sall war na jubbanti ki nga xam ne mooy Adji Sarr lii nag mooy violé li nga xam ne maanaam mooy secret de l'instruction te loolay yoon daf koy tere ba tey ci biir yéen kaay gii di réew mi ko ci xalima ak Assane Samba nag li nga xam ne daal mooy secret d'instruction ci Sénégal amatul benn valeur yéen kaay gii di las nee ay journalistes yoo xam ne ñoo ngi leen xoqatal di di saaga di ay menaces de mort loolee moo tax nag mbootaay yi nga xam ne ñoo ëmb taskatu xabaar yi jamono ji bëgg nañoo jël mbir mi yóbbu ko fa mbaxana doonee benn yéen kaay gii di réew di cee xëy ñu organisation ñi nga xam ne ñoo ci loro te ñi nga xam ne ñoo ci loro di ay effet secondaire loolu lu néew a néew la yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñi ci réew mi di Sénégal am na ñoo xam ne sonn nañ ba maara day taali mooy ñi nga xam ne ñooy bay mbayum dër mbayum noor ñi nga xam ne ñooy bay ay soble ak ay pomme de terre te nekk zone des Niayes bay nañ lu takkoo takku waaye nag ay chambre froide moo leen të ak bërëb yoo xam ne danañu ko fa mën a conserver moo tax li nga xam ne moo yàqu ay pomme de terre ak i carotte ak i pataas ak i soble fu ko waaye fi nga xam ne mooy kër Abdou Ndiaye ak Kayar foofee bëri na am mbayum noor